ñu di ko tàllal suñu yoxo di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm ba tax na di ko wax allahumma anta salaam wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayyinna bisalaam wa adxilna aljannata daaraka daaru salaam amin ya rabbal alamin yan nañu yàlla boole nangul la ñaan bi di tekki mbokk yi ñu bokk sant yàlla moom mi ñu may lañu jóge ko def waxtu su néew ci ginnaaw te mooy waxtu yi julli fajar mu nekk njëlbeenu audience ba jullit bi di am ak boromam ci bés bi bu ñu ba jullit bi di am ak boromam ci njëlbeenu bés bi ñu ne mooy waxtu wu njëkk bi nga xamante ne cala jullit bi di taxawu ci kanamu boromam di ko jaamu di toroxlu di ko nangul ne moom jaamam la waaye mu nangul ko ne yàlla mooy ki ko bind te mooy boroma action boobu balaa ñu di ko nangu wala ñu di ko accepter am na fu ñuy jaar ak melokaan boobu ak loolu ñu junju sànq fa ñuy jaar ak jullit boobu bi mu nangu lañ doon wax fa ñuy jaar ak jullit boobu ba mu accepté loolu ñuy wax noonu moo ne daa fekk ne jullit boobu bàyyi na xel ne ba ko buur yàlla mayee xéewal ba mu yeewu ci nelaw ba mu doon nelaw mu dégg noddukat bay noddu ci jàkk ji muy yëglu ne waxtu yu julli bu ñu naan fajar jot na ba tax na jullit boobu ñu di ko convoqué di ko ne assalaatu xayrun min an nawm moo ne dañ ko naan julli moo gën nelaw ba nga nekkee ñu daal ko ko repetal ñaari yoon ba ñetti yoon ñu wax ko ko ay yoon yu bari wax boobu ñu di ko ko wax ñu di ko ko répéteel moo waral mu wara génn wara dem wuyu nodd bi nga xamante ne mooy la tax ñu di ko wax ni julli moo gën nelaw ba nga nekkee moo ne bu demee wuyu woote woowu mooy rencontation bi mu am ak boromam ci njëlbeenu bés bi nga xamante ne ca la ko yàlla may xéewal ju toll ni mu war joxe waxtu woowu ña joxe ci jàkk yi yal na leen yàlla nangul njëriñ ba ci yenentu bi wax sallallahu alayhi wa sallam na bu ko yàlla xañ yan nañu ko yàlla réserver fa moom mu dencal ñu ko fa moom keroog bés mu defal ñu ko xasanaatu fil mizan doy na rek ñu ne sallallahu alayhi wa moo ñu ne man salla alfajr fi jamaa wa huwa fi zimmatillah moo ne def ñu ne képp ku teewee juli fajar ci mbooloo kooku de manees nañoo wax ne yàlla yenkeewal na ko may na ko sutural na ko wërsëgal na ko xéewalal na ko mooy ki nekk ci kaaraange yàlla nag bu dee julli fajar ci mbooloo ak ci waxtu wa moo tax nga am ko moo tax nga jot si kon ah bu dee julli fajar ci mbooloo moo lay taxa dugg ci kaaraange yàlla ci ña yàlla cautionné ni ñii la sécurité cent cent kon bu dee ku yeewu bu dee ku bëgg ay yiw nga saa yoo déggee noddukat bi naan assalaatu julli xayrun moo gën mina nawm nelaw bi ngeen nekkee yow xawma loo war def wala loo warul def mais du tëdd waaw la war a def mooy dem yu la noddkat bi di noddu waaye la noddkat bi di woote ba tax na yéen a ngi fàttaleeku ñu ngi doon waxtaan ak yéen lenn ci melokaanu soxna yi nga xamante ne yàlla dogal na ñu nekk ci bu sëy waaye moo xam xattaa ñu nekkul ci bu mu sëy la yenentu bi digle ne loolu moo wara doon seeni melokaan ñu ne ñu bokk ànd ak képp kuy opte flambeau féministe kaay mais ñu nopp ñu yekkal la ci sa ndabu nopp ak ci sa ndabu xol la yonent bi sallallahu alayhi wa baaxe jigéen ci boppam te njàngaleem mooy njàngale ju mucc ayib ci penc bi weneen jàngale ba waaye andi feneen mën na laa dugal ci éeril comme mën na laa dugal ci tuuxi duuna ba tax na ñu bokk fas yéene ànd ak képp koo xamante ne yàlla nattoona la mu bindee la ci mbindunu jigéen ñu bokk déglu la suñu yenentu bi baaxee soxna soosu yàlla bindee mbindunu jigéen ci xadiisu abi hurayrata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida sallat almaratu xamsaha wa saamat shahraha wa xasunat farajaha wa taat zawjuha qiila laha udxuli ljannata min ayi abwaabi jannati chit saxiixu xadisun saxiix axrajahu albani fi saxiixi jaami mbokk yi yan na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seni njaboot ka yàlla doyloo mu yónnee ko ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam risaala ko yàlla jox subhaanahu wa moo tax mu baaxee ñu xadis bi ngir mboolem soxna yi nga xamante ne ñoom la yàlla nattoo mu jagleel leen mbindinu jigéen yen la bi baaxee xadis bi yen la yonent bi jox raccourci boo xamante ne bu ngeen ci moyee tàbbi ci buntu arjana yi buntu bu leen neex duggin bi dinañ leen ko nettalil ci komanteer yi waaye yow mi fay dugg noo fay duggee dina ñëw ci commentaire yi kon gis nañ ne risaala ak nubuwa ba yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi leeral na ko xeet wi laayee na biir xeet bi partagé na message bi moo tax képp ku yàlla wërsëgal nga dem aji màkk ba keroog nga dem ziyaare ko ca madinatul munawwara ci buqaatu sharifa ba mu nekk ci place bu tedd boobu mu nekk moo tax pour nga mën a feddali nga mën a cautionner nga mën a valider ne la ko yàlla yónni kat matal na ko moo tax nga di ko nuyoo ko alsalaatu wassalaamu aaleyka ya rasul allah alsalaatu wassalaamu aaleyka ya nabiy allah alsalaatu wassalaamu aaleyka ya habib allah alsalaamu aaleyka ya rasul allah qad ballagta alrisalata wa addalta al amaanata wa nasaxta al umma wa jahadta fi llahi xaqa jihaadihi xata ataaka alyaqin sallallahu alayhi wa sallam boo demee ziyaara yonent bi ci buqaatu sharifa ba mu nekk ci place bu tedd boobu noonu nekk ca jàkkaam bu tedd boobu ca Madinatul Munawwara ñoom bay kewee xafizahu llahu waraahu ñu di ko tagg bokk na ci seeni teggin ba ñuy tagg bere boobe ñu naan borom bareeru or wi yal nañu ko yàlla yombalal ñu mun koo dem ziyaare ci suñu dund ak képp ku fa bëgg a dem yal nañu ko yàlla wërsëgal yal nañu ko yàlla yombalal amin ya rabbal alamin moo ne yow jaaj demoon bere boobee yow ujaaj ba dem béréb boobe nga ne ko yan na jàmmi yàlla ak yàlla yi di dotteeku sa kaw yow mi yàlla yónni jàmmi yàlla ak xéewalu yàlla yal ko yàlla wàcceel yow mi yàlla sopp jàmmi yàlla ak xéewalu yàlla ak yërmandem yal na ko yàlla baaxe yow mi yàlla di wàcceel waxyu maa ngi seede ne ca dégg dëgg dëgg dëgg yonent bi bala yàlla yónni matal nga ko te confiance bala yàlla confier matal nga ko waaye nag lépp la nga xamante ne wal nga kaa leeralal xeet wi leeralal nga ko xeet wi ba mu leer nañ amul dara lu ci leen laaxee nga biir waaye nag takk nga sa jàjj takk nga sa ndigg xuus nga si tooru xare ba xare ba kalimatu laa ilaha illa allahu di jébbi ci kaw suuf si ba keroog yàlla jëlee la ci kaw suuf si sallallahu alayhi wa mbokk yi yenentu bu taxawee taxawaay wii yenentu bi mel melokaan bi moo wax yow jigéen bi lala féministe bi waxul yenentu bu taxawee taxawaay bu mel nii yenentu bi nekkee nekkin bu mucc ayib ni moo lay message ba nga xamante ne amul benn féministe ba ko war a mën a partagel kon nañu bokk déglu seen soppe ki leen aar ki dagg bu mu njaam ba leen nit ñi laata islaam di ñëw bu mu jaam yañu takkoon seeni ndigg bu mu jaam yañu takkoon seeni loos waaye bu mu jaam ba ñu takkoon seeni tànk mu di leen di watat di diri yóbbu leen ci njam boo xamante ne bu duwutoon yonentu ba yàlla yónni mu ñëw dagg bu mu njaam jooju ba léegi ah waxuñu ne amul keneen ku war a ñëw dagg bu mu jaam boobu waaye ndegem yàlla la yàlla yonenti bi yónni yàlla yonenti bi la yónni ngir mu ñëw dagg bu mu jaam boobu kooku mooy ki leen bëgg a partager lañ leen bëgg joxe ci doom yu mucc ayib ya nga xamante ne yéen jigéen ñi la ko baaxe kon nañ leen bokk ànd ak réew mi FM 97.5 ci waxtaanu suba si ngir ñu mën a xerewlu la yenentu bi jox mboolem xëytu jigéen raccourci bu gaaw boo xamante ne képp ku ci nekk di nga tàbbi arjana ak anam boo fay tàbbee lii féministe mënul la kaa jox ku niroo ni féministe mënuñu la kaa jox yonent bi mais yàlla yónni mu ne ko yónni bi ma la yónni du lenn du dara lu dul mu doon xéewal ñeel mboole mbindaafoon ni moo tax mu ne ko ma arsalnaka illaa rahmatan lil mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak ci njaboot yonent boobu ci xabi ci xadisu abi hurayrata radiallahu anhu moo ñu ne ida sallat almaratu xamsaha bépp jigéen bépp soxna ba dëkkee di julli waxtu yu juróom ya ko yàlla gàll ci bés bi ci weer bi ci at bi ci giiru dundam mu di respecté waxtu yu juróom mi julli yamu war a julli fekk mu ngi nekk di julli wa saamat shahraha waaye mu respecté di woor weeri koor ak weer ya nga xamante ne naan na ko ci weeri koor bi parce que dafa gis ngant mu respecté bor weeri koor yal gàll ci loosam mu fay ko comme la ko islaam jàngale wa xasunat farjaha mu takk lafu sërëm mu bañ ko wili pande fépp fu mu munti dem walla képp ku ko wara a yittewu mu bañ a wili pande la fu munti nekk mu bañ a def nii mu garde boppam wa taat zawjaha mu topp ndigle borom kiram ci ay ndigle ya nga xamante ne digle yaa yàlla santaane la mu topp ndigle borom kiram ci lépp li yàlla digle waaye yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam yonent ne képp ku ràngoo respecté say waxtu yu julli juróom respecté woor weeri koor ak bor yu la fa musa dab fay bor yooyu takk sàlla fu sir nga bañ a taxawaalu fu ne topp sa ndigalu jëkkër ci xeetu ndigle ya yàlla digle ñeenti mbir yi daal yonent bi nee képp ku ko taxawee ci sa géeru dund xiila lahaa dinañ kone ne bés yow soxna si taxawee taxawaay bi ni mel kaay boo dikkee ñu ne la udxulil jannata kay nga dugg këru xéewal ba naan arjana waaye bunt yaa ngi nii juróom-ñeenti buntu yi neuf yi yëpp lañ la obil waaw dugal buntu bu la soob min abwaabil jannati chiti bépp buntu arjanna bala neex ba nga bëgg duggee nanka duggee kooku duñ ko wax féministe boo xamante ne moom day andi contradiction wala day indi contradictoire ngir day seppi lépp luy islaam jàngale ne jigéen nii la war a comporté woo parce que ñoom dañuy seppi loxo islaam ci seeni doxalin kon képp kuy woote féministe war nga xoolaat sa taxawaay bu dee woote féministe du ñàkk ci dund bi kon nañu jël njàngale islaam def ko mu doon luy saf-saf ci seeni discours ak seeni doxalin ak seeni idéologie ci noo képp ku faatu ci woote féministe boo xamante ne ci occidentaux yi nga ko jëlee te mooy seppi loxo islaam ci doxalinu jigéen ci dund bi du yaay dégg kàddu gi de ndax kat critères yi ya yonentu bi ne nii la jigéeni jullit wara taxawee woote katu féministe yi amul dara lu ñu suur ci kat critères yi ci seeni doxalin kon bépp jigéen ba dëddu la yonent bi joxoñ ñeenti melokaani ci xadis bi du yaay dégg udxilil jannati min ayi abwaabin shi'ti du yow yaay dégg dugal àjjana bépp buntu bu la neex nanga ko duggee du yow yaay dégg lii waaye ñu dégg ci ne képp ku teg sa tànk képp ku suubu ci téréerin melokaan jikko ba yonent bi joxoñ muy quatre critères yi ci xadis yi ci xadis bi képp ku ci suubu teg fa sa jëmma nga tënk fa amaana bés penc du ñàkk ñu ne la yaay ki war a dugg àjjana duggee ko ci juróom ñeenti bunt yi nga xamante ne bunt bu la neex ngay duggee ñu ne bunt bu la neex ngay duggee ci buntu àjjana yooyu ci naka moo ne dañ la naan kaay nga dugg àjjana bunt bu la soob ak nang fa bëgg duggee daa mel nii rek monsieur le président bu la recevoir palais mu ne la kay nga jaaree bunt boo xamante ni VIP yi ñoo fay jaar bu arjana boo fay dugg jigéenu arjana yi xóorul ayni yi macha allah ñoo lay jete fleur di la tagg di la bàkk ngay am yëg-yëg bu toll nii loo musuta yëg ci sa dundu par rapport giir ba nga dund ci ci sa dund àddina bi su ko defee mu doon mbégte boo xamante ne doo ko mun a amee ci topp yeneen idéologie bu dut idéologie bu islaam tiral te yenentu bi andi ko sallallahu alayhi wa kon mbokk yi dañ leen géem góor góorlu bàyyi xel njàngale sang bi sallallahu alayhi wa ñu bañ koo beddi ñu bañ koo dindi ci suñu système bi nga xamante ne mooy suñu système mu dund ndax loolu bu xewee rek catastrophe la ñuy jural te catastrophe bu ñuy jural loolu wóorul amaana mun naa tax ñu ñàkk tiyaabo walla yiw bi nga xamante ne moom la ñu bi wax sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yéenaa ngi fàttaleku keroog buñ doon tàqale ko ki yéen ñu ngi yemoon ci classe bi nga xamante ne yonent bi bàyyil na fa doomu jullit bi leson mbind wala alwa boo xamante ne dane boo boo meññee ci diggante ñaari way jent ñaari way dencante yi ñu di ay jullit la ma bëgg nga jàng ko ci bind bi mu la bàyyil ci seeni loxo mooy nanga nga sa bopp keroog ba ngay waaja lekk la fa jaar ci ñaan mooy nanga tudd yàlla te nga lekkee sa ndeyjoor waaye nga lekk li nekk sa kanam keroog buñ doon taxale ko fa ñu yemoon tey ci mbaaxu yàlla ak ci kàttanam inchaa allahu bi iznillah ndem soob na suñu boroom nañu bëgg suubu ak yéen ci juróom-benneelu buntu bi mooy al bi thalaasa asaabia li xadiisi kaab bin malik assulami qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaakulu bi thalaasa asaabia wa yaliqu yadayhi qabla an yamassahuma rawahu muslim mbokk yi yonent bi moo nekk di jàngale ci classe bi alluwa bu jara jàng alwa bu mat a jàng waaye leçon boo xamante ne keneen ku dut moom mënooñu koo jàngal ndax sa civilisation agul fuufu sallallahu alayhi wa sallam mooy temu alwa bi mooy al akl bi thalaasa asaabia di lekkee say ñetti baaraam ci xadiisu kaab bun malik as-sulami qaal saxaabi ba doon dund ak yonent bi ci jamonoom ñu di ko duppee Kaab bun Malik as-Sulami radiyallahu anhu yan na ko buur yàlla yërëm qaal Kaab bun Malik nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nekkoon na yaakula bi thalaasa asaabi'a ñetti baaraam la doon jëfandikoo ñam ñetti baaraam hmm. wa yaliqu yadaahu qabla an yamassaha daanoon na lekkee ñetti baaraam bu noppee da ko doon mar ba mu set lu jiitu mu di ko raxasu walla lu jiitu mu di ko fomp xadis bi muslim moo ko solo mbokk yi yonent bi sallallahu jàng dundam ak jàng nu mu doon dundee farata la sunna la moom la ñu yàllaw joxoñ ne wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen ko toppee gindeeku ngeen mucc moom la yàlla wax ne wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu lépp leen lépp bi dikkee andil leen ko na ngeen ko jël wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu mu leen tere na ngeen ko sore moom la yàlla wax ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónni bu ma la yónni du lenn lu dut mu doon yërmande ñeel mboolem mbindaafoo ni kon sallallahu alayhi wa xam dundinam xam nu daan dundee loolu dafa war mboolem jullit ba nu mu daan jëfandikoo ñam ak nu mu digle ne noonu lañu ñu war a jëfandikoo ñam lii yëpp warugal la ci dund jullit bi mu xam ko su ko defee fekk yaa ngi tënk sa bopp ci doxalinu yonent bi ngay épargnel sa bopp yiw moo gën ngay jàng di xam doxalinu koo xamante ne boo fa tënkoo sa bopp doo am lenn ci ay yiw doo am dara ci ay tiyaabo mbaadu doo fa jëlee bàkkaar sax kon question bi kenn ko nekk na ko tontul boppam mel num yonentu ba ñu yàlla joxañ ne bu ngeen ko toppee jub orienté wu mucc lépp lum leen andil jël leen ko ngeen moy si kooku dong la dundam nekk dundin bi nga xamante ne ku ci teg sa tànk ku ci suubu ngir roy ko yaay kiy épargnel sa bopp ay yiw keneen ku ko wuute nag kooku sa mbir wañ xamuñu ci dara te duñ ci wax dara tamit waaye topp yonent bi daal mooy lu wóor sallallahu alayhi wa sahaabi bi di kaabun malik assulami nee na yonent bi sallallahu sallam nekkoon na ñetti baaraam la doon jëfandikoo ñam daanoon na mar baaraamaam yi laata mu ko raxasu wala laata mu ko fomp waaw ah, ñetti baaraam ñu ne mooy baaraamu digg bi ak baaraamu joxoñukaay bi ak baaraam bu mag bi bu isolé nii waaw ah, baaraam bu mag bi ak baaraamu joxoñukaay bi ak baaraamu digg bi ñu ne moom la yonent bi doon jëfandikoo sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu sallam nekkoon na yaakulu di lekk bi thalaasin ci ñetti asaabi a baaram wa yaliqu yadaahu daanoon na jëfandikoo la nga xamante ne mooy day mar ñetti baaraami qabla an yamassaha lu jiitu mu di ko fomp waaye walla lu jiitu mu di ko raxasu kon bu jëfandikoo ñetti baaraam yi noppi du jël ndox rekk ñëw raxasu day jël ñetti baaraam yi mu di ko mar benn par benn fii nag ki lekkee loxom ba mu di ko mar dañ ko naan ba xam suuroo ñàkk jàng diini day yóbbee nit ci réeraange bi nga xamante ne boo ko naree wax ki jàng diine moom du la jàppee ne yow jaaxil bu réeree sa diine nga ngay jàppee kii ku foqale moom moo di la jàppe ak ni nga mel ni yépp ak dayo bi nga am yépp ndegem yaay wax lii kon yow xamoo sa diine kon kii mar loxoom ngir topp sunna yonent bi moo war a yey ci kii wax koo xamante ne dafa jàpp ni kii mar loxoom suurul kon nañ leen bokk ubbi buntu njàng doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ko defee ñu mucc mbokk yi yal nañu yàlla may dégg ak topp waxtaan bi jeexut waaye dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi fas yéene jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan saa'iliina mawla jalla wa ala an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicma almawla wa nicma annasiira allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulaata umuurina